yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu fukkeelu njàng mi ak juróom-ñeent yàlla wàcce na fukki ndigal yi nañu bamtu nettali yi weesu benn naka lañu xamee ne yàlla bëgg na nit ñi te am na yërmande ci ñoom ganaaw bi aadama ak awa bàkkaare ci kanamu yàlla yàlla diggee na ci yërmandeem ne kenn ci askanu aadama dina daan seytaane yàlla nangu na abel ak saraxeem ci mbaaxam yàlla musal na noyin ak waa këram ci mbënn mi ci kaw mbaaxam yàlla joxe na kuy mu wut isaaxa doomu ibrahima ci yërmandeem yàlla musal na waa kër yanqoba ci xiif ma bi mu leen yóbboo misra ci kaw mbaaxam yàlla tànn na musa mu dog buumu njaamu waa israyil xaral leen géej gi ci kaw mbaaxam yàlla xam na sunu xol te bëgg nañu musal ci mbaaxam sunu amee ngëm ñaar naka lañu xamee ne yàlla bëggoon na waa Israël ba tey ca jamono yooyu ndaxte yàlla aar na leen ci musiba yi yàlla musal na leen ci atteb rey taawi misra yàlla génne na leen misra yàlla sàmm na leen ci manding ñett lan la yàlla dig Adama gannaaw gi mu dig ko Ibrahima dig ko Isaaxa dig ko Yanqooba dig na leen ne ab sëtu jigéen ji dina daan seytaane yàlla dig na leen ne dina fasaat kóllëre digganteem ak nit ñi mbind mu sell mi ci gàddaay saar ñaar fukk aaya benn ba aaya juróom benn yàlla wax na kàddu yi yépp ne man may aji sax ji di yàlla sa boroom bi la génne réewu misira këru njaam ga bul am yeneen yàlla ndaree man bul sàkkal sa bopp xërëm di ko jox melow dara lu nekk ci kaw asamaan mbaa ci suuf mbaa ci ndox yi suuf tiim bu leen sujootal te bu leen jaamu ndaxte man may aji sax ji di yàlla sa borom yàlla ju fiir laa di tooñu maam yi ci sët ba ci sëtaat suñu ma bañee waaye damay wone sama cofeel ba ci junniy junni sët suñu ma bëggee te sàmm sama ndigal buleen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla wàccee na fukki ndigal yi nettali bi mu ngi aju ci fukki ndigal yi yàlla jox musa fukki doom yanqoba yi ak ñaar ñoo wàccee fukki askani israel yi ak ñaar léegi ñu doon xeet wu yaa te yàlla doonoon seen buur ñu dox ci manding mi ba agsi ci aw tund wu ñuy wax sinayi yàlla moo waxoon musa mu yóbbu fa nit ña ngir ñu màggal fa seen boroom musa yéeg ci kaw tund wa ngir wax fa ak yàlla yàlla nettali musa ni mu musalee waa israel dog buumu njaam ga ca misira yàlla wax musa ne su ko waa israel déggalee dina def xeet wi mu màgg lool musa dellu wax lépp waa israel yi ñu ne dinañu def lépp li yàlla santaane yàlla wax musa mu wax ak nit ñi ne fi ñetti fan moom yàlla dina wàcc tund sindan yi ngir wax ak ñoom te ñetteelu fan wa mu am niir wu ñuul kuk dënu ak melax ak riirum liit mu jolli ba nit ñëpp ragal noonu musaa jiite nit ñi ngir ñu daje ak yàlla ñu taxaw ci suufu tund wi saxaar su jógee ci yàlla mu tund sinaay wa tund wi yëngu liit ga gën a jolli musa wax yàlla tontu yàlla wax musaa mu yéeg ci kaw tund wi bi musaa yéegee ci kaw tund wi yàlla artuko ne bu mu bàyyi kenn jege tund wi ndax ku ko def de noonu yàlla wax kàddu yi ñuy fukki ndigal yi benn bul am yeneen yàlla jutul man ñaar bul def benn xërëm ngir di ko jaamu ñett bul tudd tur yàlla cig neen ñeent na nga noppalu ci bësu naflaay bi def ko bës bu sell juróom fonkal sa ndey ak sa baay juróom benn bul boom juróom ñaar bul njaaloo juróom ñett bul sàcc juróom ñeent bul fen fukk bul xamem sa alalu moroom benn bul am yeneen yàlla judul man ndigal lu jëkk li mu ngi nuy jàngal ne jenn yàlla rekk am te moom lañu war a topp ñaar bul def benn xërëm ngir jaamu ko sunu ragalee ba tàmbali topp ay xërëm ñoom lañuy jaamu du yàlla soo jëfandikoo ay gàllaaj wala muslaay loolu ay xërëm la ba tey kon yaa ngi wéeru ci xërëm yi bay yàlla ñaareelu ndigal li mu ngi ñuy artu ñu moytu defar walla jaamu benn xërëm ñett bu tudd turu yàlla cig neen ñetteelu ndigalli li artu nañu ci ñu bañ a caaxaane yàlla ci ay kaf ci mer wala ci ay saaga ñeent na nga noppalu ci bésu noflaay bi def ko bës bu sell ñeenteelu ndigal li tere nanu nu liggéey ci bésu noflaay bi liggéey juróom benni fan la juróom ñaareel bi ñu war a noppalu bës boobu war nañ ci fàttaliku yàlla mi sàkk lépp te may lépp lu ñu am war nañ ko def bës bu sell ndigal yi des dañuy wax naka lañu war a jëflante ak nit ñi ku tooñ sa moroom bàkkaar nga ci kanamu yàlla ndax moo sàkk doomi aadama yépp juróom fonkal sa ndey ak sa baay juróomeelu ndigal li wax nanu nu teral sunuy waajur te fonk leen juróom benn bul boom juróom benneelu ndigal li wax nanu ne waru noo rey doomu aadama rey kañaan mer ak mbañeel ñoo bokk baat bi ñu jóge juróom ñaar bul njaaloo juróom-ñaareelu ndigal li tere na njaaloo sunu xememee jabaru jàmbur bàkkaar nañu ci sunu xel ndaxte xemem boobu mën na sax ñu njaaloo juróom-ñett bul sàcc juróom-ñetteelu ndigal li tere nanu ñu sàcc sunu jëlee alalu jàmbur ak lumu ndaw ndaw càcc la juróom-ñeent bul fen juróom-ñeenteelu ndigal li nee na bu nu fen sunu fenee ngir sunu sutura wala ngir neexal nit lu bon la war nañu wax dëgg fu ñu tollu fuk bul xemem sa alalu moroom fukkeelu ndigal li jàngal nañu ne waruñu xemem alalu jàmbur mën na tax ñu sàcc walla ñu rey yàlla jox na ndigal yi waa waa Israël ñooy nit ñi yàlla tànnoon yàlla tànn na leen ngir ñu yëgal xabaar bi nit ñëpp fukki ndigal yi nit ñëpp ko moom fii la nettali bi yem am na ay laaj benn lan la yàlla wax Israël ñu def ko ngir doon aw xeet wu màgg war nañu déggal yàlla ñaar lu tax yàlla artu nit ñi ñu sore tund wi ndaxte yàlla nga woon ca tund wa te yàlla dafa sell ñett limal fukk ndigal yi benn bul am yeneen yàlla judul man ñaar bul def benn xëram ngir jaamu ko ñett bul tudd turu yàlla cig neen ñeent nanga nga noppalu ci bésu noflaay bi def ko bés bu sell juróom fonkal sa ak sabaay baay juróom benn bul boom juróom-ñaar bul njaaloo juróom-ñett bul sàcc juróom-ñeent bul fen fukk bul xemem sa alalu moroom ñeent ndax yàlla yaakaaroon na waa Israël dinañu topp fukki ndigal yi te duñu moy déedéet yàlla xamoon na ne kenn mënul topp lépp te doo moy juróom lu tax kenn mënul a topp yàlla te doo moy ndaxte sunu maam aadama moo ko def bi mu bàkkaaree kon nun ñépp ci bàkkaar lañu juddoo moo tax bokkatuñu ci yàlla mënuñu def li neex yàlla fu ñu toll juróom benn lu tax yàlla wàccee fukki ndigal yi yàlla wàccee na fukki ndigal yi ngir won nit ñi li mu bëgg ci ñoom ndigal yi dañuy wone itam ne mënuñu def lépp li yàlla bëgg ndigali yàlla yi ñoo ñuy won ne lañu juróom-ñaar lu tax yàlla di sunu bakkare ndaxte yàlla amul bakkar te nit ki mu jëkk sàkk amul woon bakkar ndaxte yàlla mooy sunu borom te moonu sàkk ndaxte yàlla bëggul bàkkaar juróom ñett naka la yàlla di attee benn mooy rek ci ndigalam yi kóllëre gu jeex ba faw ak yàlla ak atteb safara safara si yàlla def ngir seytaane ak ay àndandoom juróom ndax mën nañu mucc suñu toppee ndigal yi déedéet ndaxte nit moom bàkkaarkat la mënul topp ndigal yépp ndigal yi dañuy won nit ki li yàlla bëgg ci moom ndigal yi dañuy won nit ki bàkkaaram te won ko ne mënul topp ndigal yépp mu toll yàlla dafa jub te dafa sel kon nit ki mënul taxaw ci kanamu yàlla ndaxte nit ki bàkkaarkat la kenn judduwul bokk ci yàlla fukk ci sa xalaat naka la nit ki mën a muccee te taxaw fa kanam yàlla war nanu nangu ne sunuy bàkkaar teqale nanu ak yàlla warees nanu noo fayal sunuy bàkkaar ngir nu mën a taxaw fa kanam yàlla fukk benn lu ngeen xalaat ne noonu lan war a fayee sunuy bàkkaar pey gi yàlla di nangu warul am benn bàkkaar yan melokaani yàlla ñoo feeñ ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla mooy boroom doole yàlla moo indi dënu def melax def safara ak saxaar def tund wi yëngu jolil ab liit laata muy wax ci kaw tund sinaay yàlla dafa jub yàlla wàcce yoon wu amul sikk te yoon wi dafay won nit ki li yàlla bëgg ci moom yàlla bëggul bàkkaar yàlla sant na nit ñi ñu sore tund wi ndax ay bàkkaarkat lañu yàlla wàccee na fukki ndigal yi ngir nit ñi moytu bàkkaar yàlla kenn la amul moroom ñeenti ndigal yi jëkk wan nañ ko ab misaala ngi ci nettali bi su ma yëkkatee aw doj ba ca kaw ma bàyyi ko luy xew kon doj wi dafay daanu ci suuf lu nekk ci kaw te dara teewu ko suuf da koy xacc ci moom lan mooy xew su nit yéegee ci catu garab ba noppi tëb kon itam nit ki dina daanu ci suuf waaye su nit ki xamul ne suuf dafay xëcce ndax dina daanu ci suuf ba tey waaw su nit kooku déggoon dëgg googu waaye mu bañ koo gëm lu koy dal ba léegi dina daanu ci suuf su fekkoon ne xam na bu baax ne suuf dafay xëcce te fay daalul loolu lu koy dal nit ka dina daanu ci suuf lu tax ndaxte dëgg la ne suuf dafay xëcce ndigali yàlla yi itam noonu lañu demee yàlla dafa joxe fukki ndigal yi ngir xeet yépp topp leen nun sunu xamul ndigal yi wala gëm leen wala di leen topp du tere ñuy doon dëgg ba faw su sa doom nekkee xale danga koy jàngal ni muy moytoo safara ndax dafay lakke noonu itam lanu war a jàngale sunuy doom ñuy moytu bàkkaar balaa ñuy mos metit yi ciy jóge bàkkaar dafay teqali nit ak yàlla te dafay indi dee beneen yoon dinañu waxtaan ci ni yàlla attee waa Israël ndax seetlu wurus wa